رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربا رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربا قديما دوام دار يبان به قد قنيت اليوم عبدا بذكري وأني أطوف روى النار والسما نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي زينبا إلي الهجاء وهو مهن وواسع له الملك ثم الأمن والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلبا رديت به ربا كريما مكرما وقال لدى والحرب والبلاء أبا جزائي على المولى بردي سوي الفراق ولي وجه مالا بتسخيري سلبا نويت نارنا لتوبى باسمي وأودعت جسمي وأودعت الخلق خادم خديم له ملك عوز خوى الخرباء نجاتي من الأعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان هداني تعالى بعد ما كدت هالكا بجاه الذي قد زين الهدن والغرباء أنادي في سر وجهر وأرتجي سلائي وإسلائي بالأهل والترباء سللت لولا للعلا ثم كان لي وكنز كتاب النبو يصف الكرباء سللت لولا للهدى ثم كان كتاب asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki internet yu Wilaya TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ba yéene ju ci mottali liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul mu yeggale ko te ànd ko ak mboolem mbokk taalibe yi mbokk ci ñaareelu fanu conseil fédéral bu fédération des groupements religieuses et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba euh, moom la ñu bëgg a liggéey nekk kon euh, ñoom dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy base bi daal jàllale seen euh, plan d'action maanaam lépp loo xam ne bëgg nañ ko liggéey ci euh, ANEP 2023 bi ginnaaw loolu nag mbokk yi xam ngeen ne yeneen kàddu dina ci jub kàddu yooyu nag bu jàllee dinañ jox ki nga xam ne mooy président kuréel gi di fédération de groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba moom itam mu daal di jàllale kàddu yi nga xam ni mooy tëj jotaay bi kon mbokk yi moo doon programme tey bi dañ leen bàyyi loo xel chaîne bi di Wilaya TV di leen jaajëfal ci kóolute gi ngeen am ci chaîne Wilaya TV ñoo ngi sàkku ci yéen ngeen daal di abonné suñu chaîne bi di Wilaya TV waaye tam ngeen daal di activé bi ngir dara ba leen a raw ci bés bi